bàyyi leen lii mbaa dóor mu daan du am mbaa dóor mu daan du am arbitre génn ci diggante bi arbitre xoola gars yi bëgg nañu Caterpillar cokkaas na jegam jegam mbaa loolu daanu jegam jegam ni ngay xeexa da eh jegam jegam rañaan na eh jegam jegam daan na Caterpillar jegam jegam da